Euh, honorable Alassane Cissé maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Comba Moreau. honorable nga nekk membre ca HCCT membre de la coalition euh, benn Bokk Yaakaar naka nga gisee teg gi ñu teg loxo Ahmed Suzanne Camara après teg euh, aussi loxo Bah Diakhaté. bon xam nga Ahmed Suzanne Camara wolof la wax wolof. ñaari baat nga mën a utiliser juum wala waxul dëgg mais ci ñun suñu dëkk xam nga xaxar saaga ak yooyu dañ koy bañ donc dañ koy jël comme saaga mais ku waxul dëgg bon mën nga ne dafa juum mais loolu warul tax ñu koy jàpp te war na tax sax ñu xoolaat article deux cent cinquante quatre ak article quatre-vingt parce que euh, ci démocratie yu mag da ngay gis ñu laan président bi waxoo dëgg mais du du du jaaxal kenn donc kon ñun suñu démocratie àgg na ci benn kii boo xam ni yooyu il faut que ñu engagé ko parce que wolof ni nga koy waxee ak euh, euh, par rapport ak situation yi donc il faut que ñu xoolaat leen loolu adapté suñu loi yi ak suñu us et coutume waaw nag taxawu nañ ko waaye Bah Diakhaté jaay doole la parce que Bah Diakhaté man mii maa ngi woon ci tribunal ba euh, Bah Diakhaté dafay teg preuve ak lépp mais jàppee ko ci luñ ko woowee woon. Euh, euh, léegi ñu laaj la Alassane Cissé sa xalaat ci visite yi nga xam ne président Diomaye amal na ko fële ca France déjà euh, ci trois mois yi mu nekk ci bopp réew mi dem na ñaari yoon France naka nga gisee visite yooyu la. xam nga wiiri wiiri jaari ndaari rek Sénégal moom mook France yàgg nañu. def nañ lu mat ñetti siècle du xëy xëy xëy ne da ngay loolu ndax euh, Sénégal dafay soxla France France di soxla Sénégal boo gisee jaabante bi ci France ah am nañ problème de trésorerie léegi nag foog nga am ku la jàppale pour ñu décaisser la te France moom mooy actionnaire majoritaire bu FMI donc Sénégal mënu ko bañ wax. Euh, comme li Pape Alé wax nañu wax dëgg sénégalais yi mais mooy loolu fii Macky Sall saa yu fi jóge woon ñu ne mooy préfet bu France au Sénégal waaye tey nag ñoom ñu ngi jaabante France kon ñoom seen wax jooju ñu ñu doon wax mun nañ ko retourner contre ñoom mais comme ñun duñu ñoom ñoom duñu ñun ndax ñun mënuñu tabax dëgg dëkk bi defar ko ba pare nekk di division ci peuple bi ñun dinañ opposé mais avec des idées avec un programme mais pas comme ñoom euh, ñu laaj la aussi si euh, euh, émigration irrégulière bi gis nga ba léegi xale yi ñu ngi jël gaal di dem di faatu malgré Diomaye moo nekk actuellement président mais aussi gis nañ ni njiit yu bees yi waxaguñ si wax bu tax ñuy mën a wax nag nga ko gisee waaw ñoom de duñ ci yëy yàbbi ndax am na quatre-vingt-neuf morts kenn déggu leen bi paa ñu naan quinze ak trente kenn déggu leen ndax lañu ñu diggoon xale yi ba ñuy campagne toog leen immigration du kii ba xale yi dem ci seen waajur yi naan leen teg jàppale leen ñu votel ñii ba leen leen votel suñu ñun ñu tekki ñu ne leen dinañ leen jox liggéey ku ci amul liggéey dinañ la jox benn pécule boo xam ni dina mat cent cinquante mille wala deux cent mille bu leen génn dëkk bi ah xale yi toog ñetti weer gisuñu dara lu dul chômage buy yokk ndax ñu ngi dàq fii ñu ngi dàq fële lañ leen diggoon gisuñu ko ñu daal di xam ni lii ay naxe mbaay la ñu jëlaat kii bi ñu jëlaat géej gi ji ci faatu mais euh, nañu xam ni rek ni Euh, immigration moom phénomène la boo xam ni dafay am tout temps mais nag ñu jéem a fexe ba nga xam ni nit ñi bañ a dem nit ñi bañ a fi te sax da xool dee dee yi ci géej gi la ñuy wax mais lii dee ci désert baag yooyu moo ëpp téeméer yoon mais kenn du ci wax donc amuñu solution nañu wax xale yi ni amuñu solution wax leen ni mënuñu jox ñëpp liggéey mënuñu joxe ay pécule loolu ñoom ñoo ko diggee woon mais ba ñu toogee gis nañu réalité pouvoir parce que ñoom dañ doon bañ réalité pouvoir mais tey jii fu ngi nii ci réalité pouvoir parce que xam nañ ni da euh, pouvoir du loo xam ni da ngay ñëw rek fekk lépp sotti. ban bilan ngay def Alassane Cissé un mois après bi ñu wàññee prix wu yenn denrées yi. comme suukar euh, diwlin euh, ceeb euh, ciment ak mburu xam nga wàññi moom dañ koy wax rek waaye wàññiwuñu bu ñu wàññi woon prix wu ceeb bi trois cent vingt cinq francs la woon waaye ñoom ci spéculation la ñu wàññi ndax ceeb bi diggante élection yi dafa yokku ba quatre cent waxuñu loolu ñoom ñu toog ceeb bi yokkuwaat fukki dërëm mu doon quatre cent cinquante ñu wàññi ci yokk bi c'est-à-dire li ñu yokkoon yëpp ñoom dañ ci ciblé wàññi ci euh, quarante francs mais quarante francs yooyu dañ ko wàññi ci kaw yokkute kon ñoom dañu def lu dul yokk ceeb parce que ceeb prix normal officiel bi trois cent vingt cinq la woon ñu bàyyi ko léegi quatre cent dix francs kon yokk moo am foofu diwlin gi mu ngi doon euh, euh, kiiwu vingt litres bi mu ngi doon jar seize mille sept cent cinquante wala dix sept mille boo ñëwee ne dix huit mille cinq cent da yokk kon amul wàññi. Hmm. suukar si ah, demal ci boutique yi wala nga dem ci marché yi di nga xam ni wàññi amu fa eh, ñetteel bi muy pain pain bi <laughs> saa boo wàññee kilo bi eh, boo wàññee gramme bi. jëlee ko deux cent dix gramme ba cent quatre vingt dix boo ko jaayee cent cinquante tamit dafa normal kon dañoo wàññi poids mburu bi doog a wàññi euh, njëg li kon foofu amul wàññi li li boulanger yi doon kaas tout le temps naan nañu wàññi grammage bi moom leen defal loolu moo fi am. Euh, ñu wax aussi si kaw Amadou Ba est-ce que Amadou Ba euh, fi ñu toll nii am na seen bokk yaakaar yëpp waaw walla déet. xam nga Amadou Ba Benno Bokk Yaakaar daf ko soutenir ànd ak moom kon mun nañoo bañ a xalaat ni Benno àndul ak moom ndax Amadou Ba nekk na léegi loo xam ni réalité la ci terrain politique bi. parce que ku am trente cinq virgule sept pour cent réalité la ci monde politique kenn mënatul ko bañ kon nag Benno Bokk Yaakaar na mu àndoon ak Amadou Ba noonu laa yaakaaree ni noonu lay ànd ak Amadou Ba parce li ci ëpp ci Benno Amadou Ba la ñuy waxtaanal kon nag Amadou Ba bu taxawee ngeen xam ni dina am coalition bu mag. Euh, peut question wala ñu laaj la ci attaque bi nga xam ne euh, Fadilou Keita amal na ko jëmale ko ci yéen moom mooy les les opposants ak koppar yi nga xam ni euh, yor ngeen ko jàpp na ne dañ leen a war a euh, topp nangu koppar ba ratt leen ba ngeen set comme euh, rek wali Diouf Bodian na mu ko waxee woon que mënuñu opposé wu face à des opposants milliardaire. xam nga man dama gëm ni ñii chaque jour dañuy ut wax lay bu bees gouvernement ak directeur yoo xam ni lay rek la ñuy ut bu ñu amoon tarafatal ay ci ñi fi nekkoon kon jàpp nañ leen li koy firndeel mooy de barki démb ngeen gis Lat ñu woo ko ci loo xam ni. du dara parce que benn waaye def na vidéo ne man de bëggoon na ma dénk milliard mais bëggoon na ma noo ci mënee jàpp nit di ko woo ci koo xam ni li mu Lat dafa porté woon plainte contre moom ndax ñu njaay léegi kooku génn bëgg a fayeeku ñu bëgg a jël prétexte boobu pour woo ko di ko déglu mais loolu mooy wonee ni ñi amuñu dara ci ñi fi doon gouverner parce que loolu lañu jaayoon peuple bi toog ne gisuñu ñu taxawaat naan lañ ay ñu ngi commandé waat ay audit kon boobu amoo dara loo foo mun a jàpp nañuy wax dëgg population bi utiliser nañu jeunes yi femmes yi mag ñi ci ay wax yoo xam ni teguwul woon ba jël nguur gi parce que boo ko xoolee rek da koy xool ci phénomène ubbi dëkk peuple bu mun a gëm ubbi dëkk mun a gëm ay rumeur yoo xam ni moom lay gouvernant yi di véhiculer di wax parce que loolu moo bon ci nguur gi parce que chaque jour dañ lay génneel lay loo wax am nañ ci lay mais du ñu régler problème mu sénégalais yi et lañ ko nar a toppee pendant cinq ans. dernière question ba léegi euh, les travailleurs des collectivités locale ñu ngi continuer seen grève. malgré euh, tabb gi ñu tabb président Diomaye problème bi nag depuis seen nguur la woon yéen naka nga gisee mbir mi ba léegi amagul solution te nit yi ñu ngi am ay jafe-jafe yu metti pour mën a am ay papier administratif xam nga ñun suñu nguur da doon waxtaan à chaque fois daan nañu waxtaan fexe joxe un peu ci waat di def noonu parce que lépp ndar mu sottiwul benn bés waaye ñii dañoo ñëw ak la ñu diggoon sénégalais yi mais bu ñu toogee ne nit ñi mënuñu ko nit ñi dañuy kii gis nga li ñuy wax mooy ñiy fabrique dañuy fabriquer chômage parce que dàq la ñu gën a xam que négocier ñoom xamuñu négocier dañuy ñëw rek jaxe loolu mooy seen marque de fabrique donc pour ñoom lépp doole la bu fekkente ni réew da ko yore ci ndewale peuple bi tamit am na toog seetlu xaar bu élection jotee mu def lu mu war a def. merci beaucoup honorable Alassane Cissé ñu ngi lay remercier ci disponibilité bi. merci beaucoup. may fàttali euh, Alassane Cissé membre nga ca HCCT nekk membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar jërëjëf. jërëjëf